dañu daje fii pour daf euh, analyse pour analyser xool secteur protection sociale suñ ko analyser si la ñuy xamee ñun fan la ñu jëm suñ ko defee ba pare dañu war a ñun benn formulation plan stratégie maanaam téere buy tënk ñu ban stratégie la ñuy teg pour que mission yi ñu dénk yi ñu gën ñu mun ko def ñu mun ko réaliser moom moo ñu daje tey moo tax ñu ñu daje fii tey bu ñu defee xamee euh, défi notamment fexe ba sénégalais bu nekk nga am sécurité sociale fexe aussi ba sécurité sociale boobu naka la ñu mu law parce que xam nañu ni que Sénégal ñu si gën a bëri dañ nekk si secteur informel nekkuñu si ay bureau ba ñu mun a am ay assurance maladie wala ñu mun a am yeneen moo tax nag couverture maladie universelle am solo mais dañuy soxla yeneen tamit filets sociaux loolu tamit dañ siy waxtaan ak xool tamit nit ki mun nga am couverture maladie universelle mais mun nga tamit am bourse wala nga bañ amul mais di nga soxla leneen boo ku judd ba fi muy màggatee am chaque fois muy donc loolu yëpp dañ koy dañ koy waxtaane ñu am orientation stratégique si orientation buñ lañ plan d'action bi ñu war pour que lii ñu am nangam si xaalis te xam ngeen ni que heureusement Sénégal depuis 2010, dafa gën jox gëdd

donc loolu moo nekkoon solo mooy solo atelier bi bi ñuy def ci ñett fan ñu woo si nag ñeneen ñi sectoriel parce que protection sociale boo ko déggee am na ñu bëri ñoo xam dañ si liggéey man ñu mel ni ay ministère de la santé gis ngeen DGAS mu ngi fi ñoom ñoo yore carte d'égalité des chances yi entre autres di ngeen gis aussi euh, CMI dina fi nekk ministère de la femme tamit am na luñ si si liggéey si wàllu am nañ pàcc bi ñu si liggéey ministère du travail ku nekk sécurité sociale ku nekk am na loo si liggéey sécurité sociale boo waxee mooy caisse de sécurité sociale ak IPRES ak bëri na ay secteurs yoo xam dañ si war a liggéey pour fexe ba sénégalais bu nekk ñu mun la jàppale ba nga xam ni di nga dund si sa ngor